kon day mel ne sëñ Moussa yoonu murid yépp ñëw na ñi nag ñun nag ñu fi fekk nag bég nañ ci lool ndax sa sa jataay boo ñëwoon dugg rek wala nga toog ci oto bi sax ñu ne sëñ Moutalaam sëñ lu ñëw na loola rek rey na sëkk boo wàccee ba ñëw ba ci saal bi noo toog saafanteek ñun wax fi kàddu yi rafet yi nga sëñ Moussa waxal loola ñun gën nañ cee bég sëñ Moussa it yow it waaw góor nii daal baax na waaye ne mën nga koo yëkkati loolu nag sëñ Moussa kon yoon waa ngoog bàyyi Abdou daal kon nañ ko doolee ñaanal te xam ne li nga bëggoon ci moom daal Touba gee mu nekk lii dong la fa nekk di dem seeti nit ñu baax ñi da jaxasoo ñoom di wax lu baax di def lu baax moo tax it mu mën fee yëkkati ku mel ne sëñ Moutalla nga ñaanal ñu nag bu ko bis bii nag nga xam ne ab nga xam ne ñëw gi nga ciy ñëw nag tàmbali lay doon waaye nag waxtu wu nekk nay yokk na kër gi yokk na njaboot gi yokk na xéewal yi yokk lii ñu ciy defal sëñ Abdoulaye waaw ah, jërëjëf kon baax na ndax euh, lii nga ñu defal jomb na man ndax li tax mu jom ab taalib rek laa te moom nag laa fi seen doon fii kër dafii ñëw mais sa jéego yi ngi fi ñëw indi lu sori ci man la ndax ñun suñ suñu waajur dafa gàddaayoon rek ñëw ci tubaa kon boo ñëwee fi sagal ñu euh, dellu ñu maanaam li xam ne mooy ndigalu suñ tubaa la ñun di gën a santaat yàlla yàlla xam ne lii nga ñu defal jomb na ma lool man suñ Sëñ Tuubaa mbég naa ci nag mbégte moo xam te moom yàlla rek laa seereel li ñu fi indi nag mooy ak baaxam ak yëgam ndax eh, ñoo ko mag fuuf dëkk bi moom danga néew fi ni mu fi amee kër baay la ñu fi amee kër baay seet nañ ko ñëppit nag waaye wax dëgg yàlla naka jekki nag moom suñu yitte yittee ma fu nekk dañ koy gis fu nekk dañ koy dégg lu nekkit ma nga ca wax dëgg yàlla mu defu ko nu dong it lépp lu jooyam yitte boo fa nekkul loo ko ci wax mu def ci lu kawe sa njortu li li ci ëpp solo muy eh, nga war ko mën a jàpp nit muy xol bu rafet loolu mu yàlla defal wax dëgg yàlla te ñi ko xam ñëpp maase nañ ci loolu kon amuñu lu ci ko sant ak di ko ñaanal rek bis bi mu yàgg koo taxee ci barke borom Touba eh, barke Cheikh Abdoulaye ñu yàgg fii ñuy fekk ko fi barke Sëñ Touba lu mu ci def ramadan it eh, mu mën ci lu ko ëpp déwén ci barke borom Touba waaye nag du ñibbi mukk te ñëwuñ ci Moussa ndax daf ñu ko yëgal te daf ñoo yëg kon nag bu ñu demee ba doomi dëkk bi mag di seen i doom ba man di jàpp ci liggéeyu Sëñ Abdou Lahad kon yéen war bu baax Moussa nag yaa ngi fi indi mag sama mag bi baax ji nañ ko waxtaane doon kenn ku nekk ci ñun dañ ko yëg yëgal ko gis te am ci cër ñu am ko ci biñ ci waaye nag ñu boole suñu cër yëpp yow delloo la loolu nga nekk nag ba am ñii nga am ñi fi ñëw ñëpp dëkk moom bu doxee rek waa dëkk baa ko doxal te bokk nga ci ñi yaatal mbirum sëñ bi kon yàlla yaatal sa bàyyi laa ci waajur ci loolu rek mooy suñu tànk ba ma la ko la yabal waaye dem naa xam ne sa pësee ko la la jàpp waxtu kon ñoo ngi lay sant daal sant gi mën a daal ci tur sëñ am sala ko def bi yëpp koo ci gis ak koo ci gis daal koo gis rek ñëpp ñëw nañ jëmee ko kanam loo ci nekk rek boo geesee da nga ñu gis incha allah. te Moussa mii ko amub yar la Moussa ko ami teggin la ku mën a joxe cër la ku mën a joxe boppam la ngir jëmmi sëñ Touba ndax ñun dey ma sunni ko Moussa defal nu lii wala demal nu fii wala waxal nu lii mu teg ca benn baat lu dul daal di dem def ko loola nag mi ngi ko jëlee ci waajuram bii bari na sëti sëñ Tuubaa wala sëti ñu baax ñu la nuyu fi ñoo xam ne jëmmam ji rek a tax nu ñëw jëmmam ji yooyu ka tax seen tànk dugg ci kër gi am na jikko joo xam ne su ko jikkoo woon loolu mënu ko am ndax amul lu ñu dabu ci moom ku moom sax dabuñu ci moom dara ndax sëñ Tuubaa defal noonu lépp tan nangu ko it kon jikko ji nga xam ni moom la ñëpp ñu baax di doxe nekkul ci mag nekkul ci mag nekkul ci gone yàllaa koy def ci ku ko soob te loolu la ñu xam si moom te kenn du seede loo xam ni xamoo loo seede tey jii boo lëgee da nga ko seede sëñ Abdou ñoo ngi seere suñ cant ci Moussa mi te muy dëgg ci ñun ndax duñ wax luñ gëmut duñ dem fuñ bëggut a tamit ñun ñi nag ci lool rek la ñu dox gërëm ko ak sant ko ci doxinam ak i jëfam ci digganteem ak ñun ci digganteem ak ñeneen ñu mel ni ñun. ñu ne ca dëkk ba gis di gis bokk na li ñu andi fii tey